maa ngi lay nuyu. maa ngi lay la. Ablaye Ndour Bangoura. Ablaye Ndour Bangoura. waaw lu man moo xew ñoo nekk ci biir jékki-jékki rek am ay policiers yu ñëw dugg ci biir kër gi fekk fi ay nit laaju ñu leen dara indiwuñu këyit pour wane ne dañoo war a dugg ci kër gi ñëw dugg ci biir kër gi jàpp ay nit di leen dóor dóor leen ba kenn ki génn àdduna nii ay xeeru pavé lañ ko doon dóor xeeru trottoir moom lañ ko doon dóor. biñ koy génnee ci kër gi dañ koo diri moo tax ñu xam ne kii du dundaat te dee na tey jii nii loolu la yàlla dogal te seen loxo la jaar ñoom policier yi ñoo ko dóor ba mu génn àdduna police Pikine Ahmed Taye lañ koy wax Mohamed Diop la tudd ñu koy wax Ahmed Taye policier yi fi ñëw fekko ci biir kër gi dóor ko ba mu génn àdduna ci biir kër gi lañ ko dóoree ci li ma fekkee ba policiers yàgg nañ ko def chaque weeru koor ñu def koor bii passé def nañ ko ba ca topp def nañ ko bii def nañ ko ametaay dëkk fi mais fii la juddoo yaroo fi màggee di foosee si kër gi di ànd ak sama jarbaat mook sama jarbaat ay mbir mi kañ la am. mercredi ci guddi fi la am dimanche booy bi génn àdduna mercredi la nekk dans la camo ba dimanche la génn àdduna démb. lan mooy firndeel ni policiers yi ñoom ñoo ko dóor. policiers yi ñoo ko dóor ndax fekkee naa ko oto police moo ko mujj jël si bi ñuy ñëw ci kër gi dañoo daw romb ma fërëb daw dugg ci néegu booy yi. ban oto police la. oto police moo fi ñëwoon ñoo ñëwoon fii jël si booy bi ci biir kër gi lañ ko dóoree ba mu faatu mais faatoowul ci kër gi hôpital la faatoo def na fa 4 jours. lan moo tax ñu ñëw di jël si booy bi lan lañ am comme information. xaw ma ko te waxuñu damaa jékki-jékki rek yëg yëg xeex ñu ngi xeex ci biir néeg ba ñu génn si biti ñu koy dóor ay xeeru trottoir pavé bu leen neexee ngeen ñëw xool ma wala leen pavé yi ñu ko doon dóor. Mm-hmm. mais jóg ñëw rek dugg ci biir kër am na la moo yëkkati police lan la. te xaw ma ko loo ngay wax ni xaw ma ko chaque fois ñu def ko. mais fois ñu war ko def fii. dama bàyyi yeneen kër yi ñëw fii. te chaque fois ci kër gi lañ koy defee jaayuñu lu ñuy tere te moom lañ leen di accuser nag buñ ñëwee saa bu ñëwee duñ ko fi fekk. ba biñ koy jël si nii sax fekk ko fi ñu dóor ko dóor yi métti amuñu temps waxtaan sax ñu jàpp ko dóor ko dóor yi métti diri ko yóbbu neewuñu lii moo tax ñu yóbbu ko waxuñu ko. limu policiers yi ñaata la woon. mat nañ sept wala huit neuf sama doom bi nee na neuf. neuf ñoo fi ñëwoon. waaw neuf policiers ñoo fi ñëwoon. Euh, suba gi la bëccëg gi guddi gi wala. guddi gi la heure naafile boobu nit ñi ngi si jumaa ji di naafile. xale yëpp a ngi woon ci jumaa ji di naafilu noonu la demee. boobu yow lan nga doon def. man maa ngi woon ci waañ bi toog def ma dara ñoom ñoo tax ma génn waañ bi biñ demee ba coow li bari birigi pape yi di naaw ñu koy dóor booy yi ne leen li ngeen di def ëpp na li ngeen di def nii ëpp na lu si am rek yéen la jël leen seen responsable ba nuñ ko génnewee yàpp ko ci oto bi yóbbu moom kese lañ ci jàpp wala dafa am ñeneen. moom ak keneen keneen kaa nga 100 mètres ñu téye moom dee na sama jarbaat si la bokk daa daw. sa jarbaat moo tudd. moo tudd Ndeene Fall man ak yaay ma bokk ndey ak baay ñoom ñoom Ndeene la seet mais seetuñu ma seetuñu sama mag man ak sama mag ñoo dëkk si kër gi Ndeene yaayam ñoo bokk ndey baay. kon maanaam police dafa jàpp ne kër gi fii dañ fi jaay euh, Sénébar. waaw yaakaar dañ fiy jaay Sénébar. ñaata yoon la ñëw. fii ñëw na fi ay ñetti yoon yu ma fekk am na yoo xam ne fekk ma fi day fekk ma nekk sànce bi si bëri dañ may woo ne ma ñëwoon nañ fi mais man saa wuñ fi ñëwee amuñu pour accès pour dugg sama néeg saa ñëwee sama jarwaar la ñuy seet ak ay xaritam. Amet biñ ko jàppee dóor ko nga ne après fan lañ ko yóbbu dañ ko yóbbu police wala dañ ko bàyyi. yóbbuwuñ ko ndax dégg naa ñu ne dañ ko yóbbu hôpital Caaroy waa caaray bañ Dominique lañ ko njëkk a yóbbu. ni daa def soog waa Dominique ne nañ ko yóbbu caaray ñu yóbbu ko Caaroy waa Caaroy ne nañ ko yóbbu principal xaw ma sitoo ba ba pële la mujjee principal fa la faatoo demee ba nuy yeewuwul dans le coma la nekk ba nuy yeewuwul ba nu mu nax saayee kon policiers yi ñoo ko wàccee bu wàccee. ban taxawaay ngeen ci am yéen ñi dëkk ak moom. ñun taxawaay buñ ci am lu dul bàyyi yoon def liggéeyam rek ndax man maa ko fekkee te su ma génnee sama téléphone filmé. mën nañ ma indil problème boole ma si te man bokk ma si te ci kër gi laa dëkk saabu laa ci kër gi dëgg la maa gën a ndaw ci famille bi mais saabu laa ci kër gi sama soxna laa fi nekkal ak sama njaboot sama mag ak njabootam noonu la demee chaque jour ñoom ñuy ñëw fii di jéem a toroxal kër gi waaw mu naqariñu torop kër gi dañ fi mës jàpp kuy jaay li ni mel wala. déedéet musul am musul am. bind ngeen waaw man moom binduma peleen mais ñee bind nañ peleen mooy ñi bokk ak booy bi ndey ak baay te dama na leen woon bu ngeen di dem ci commissaire na ngeen ma woo moom laa leen wax waaw. bi yëg na li. yëg na ko yëgu ko woon nag ndax bi gars yi di ñëw tàggoowuñu yaa ngi may dégg mais après fee bi mu amee wax nañ ko ni gars yi ñëwoon nañ fi kon commissaire yëg na ko ba mu ne bi ngeen di ñëw man dañ ma waroon a woowaale. grand boobu laa doon woo téléphone nii doon ko laaj ba xam autopsie bi pare na. beneen bi mooy yow est-ce que mën nga identifier ñi nga xam ne nee nga ay policiers lañ ñoom ñoo def lii. policiers yàlla xam na ne xaw ma seen kanam xam naa daal ñaari nit yoo xam ne kenn ki fii la dëkk cité bi kenn ki fii zone mais ñaar ñooñu ñëpp dugguñu woon ci biir kër gi bi ñu demee ba war a jël si booy bi pour yóbbu ci la kenn ki dëkk zone taxaw di ma nuyu ba ma saaga ko ne ma nuyu bu nuyu. ndax li ngeen def ni du yoon mais bokkul woon ñu doon dóor. comment se fekkee nga ko mënoo xàmmee policiers yi xanaa guddi la fii amul làmp dafa lëndëm wala lan la. guddi la xoolal suñu ëtt bi xam nga ne fii lumière bi du tàq guddi ndax ëtt bi fi nekk guddi gi guddi la ñëpp dem nañ naa fi de man rek maa fi nekk ak soxna si ci waañ noonu. noonu la demee. Euh, yan kàddu nga ci yu may yu may sama kàddu yu may yëkkati daal mooy damaa bëgg procureur def liggéeyam quoi ci lii ndax lii chaque fois da dafiy am mais mu su fi am kon lii ëpp na chaque fois da dafiy am dama jarbaat mi ngi si kër gi mais maa ngi moom neexoowuñu woon du wax ma wax su ma xëyee may jël sama yoon dem sànce ñu mu xëyee nekk ci bopp mooy ki daw te daw moo ko ci muccoon ndax moom dañ ko eenal korité bee paase benn policier bi ñëw na fi ne ko jàppoon nañ la maa taxoon ñu bàyyi la. ñoom dañu am antécédent ak la justice dañu mës a am ak problème ak yoon wala. ak ñoom waaw ndax yooyu mënul ñaax dem nañ fi kaso ñëwaat ci ay affaire xale rek mënu ma ko compter nag waaw mënu ma ko compter bu su nekk xaw ma lu mu dem kaso xaw ma nga jàpp ni li ñuy jot dem kaso ñoom bëri na. kan ñoom waaw ah, mos nañ fa dem moom mais xaw ma gëj nañ fa daal mais mos nañ fa dem. sa jarbaat bi na fa gëj na fa. moo xaw ma ko ndax sequma ak moom lu bari numéro am sax yoruma ko mais maag yaay ma bokk ndey ak baay man Abdoulaye Ndour Bangoura. ok fekk ñu def lu ñuy def ba pare daal jël ma sama buntu nekk perturber samay doom ay doomi jigéen rek laa am kër gi maa fi kilifa ma lef sama papa baay sama kër baay la jënduma ko waxaale wu ma ko damaa judd ci biir kër gi kër gi du këru locataire lii nag du fi gan ñëwoon na fi li may wax dafa am témoin seen policier wu police Pikine bi koor gi daaw ci bisu korité fekk na ma fi man aw ma jot ouvrier la maçon la 24 heures sur 24 maa ngi ci terrain bi damay teel a jóg di naaj a wàcc su ma doon def lu bon kër gi ngeen ma fekk étage naa ko man du ragal du ma ragal du ma tàppet te duma tooñ am na yoo xamante ne nag mën na ñàkk suñu kër gii du commissariat presque quatre fois mi ngi nii ma leen fii dégg. daaw lañ fi gëj ca koor ga korité korité bisu korité fii la ñëw naan day naan ndewoo na lay ganaar lay laaj ak dañ ko ko digoon ma wax ak moom mu ne ma dootu fi dugg ma ne ko kër gi bu fi dugg te amatoo mandat d'arrêt mu génne kartam ma carrément photo ko ma ne ko ko photo parce que man am na yoo xamante ne doxuma ci doxuma ci démb barki démb nag lañ ma woowaat ne ma kaay xool li xew fii ci biir kër gi falaa yam technopole ba di ko dóor mel ni dañ koo jàppal en waaw ñoom ñoo ko tooñ ay kuur ak xeer yamul fii rek dañ ko yóbbuwaat ba technopole ba ñoom ñooy sàcc yi ñoom ñooy vagabond yi waaw ñun ñëpp fii liggéey lañ xam xamuñu lu bon waaw jël nañ xaalisam jël nañ lépp mais loolu yëpp du garaaw yow nooy aaree nit yow di topp askan wi di ko lor dañuy liggéey ba pare xamuñu lu ñuy liggéey dara xamuñu ci dara ay sàcc la ñoom ñëpp waaw maa ko wax ah sama xarit la ñoo foondoo waaw du tooñ xolam dara nekku si waaw ku baax barki alxuraanu karim jox ma cent franc mais dafa baax waaw ñoom ñoo ko tooñ ñoo ko rey. police Pikine la. waa police Pikine waaw police Pikine. mais fii ñoom xam nañ sàcc yi xam nañ agresseur xam nañ ñuy def lu bon fii xamuñu lu bon waaw. Euh, ki génn àdduna muy Mouhamed Diop ñu gën koo xam si amee taaya sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay. ak kii nga xam ni taxaw fii ñoom it samay rakk lañ ñeneen ñi nag ñoom ñu ngi ci kër ga mais dafa jekk ni comme fii la fee bi amee rek ñu ñëw defee fii émission bi ak lépp lu fi mënta am ak ku mënti ñëw it fii lañ lay indi donte dañuy demaat ci kër ga ci famille ba mais daal fii daal la fee yëpp amee. fii moom mooy Pikine Daaru Ñàngoor. waaw fii moom mooy Pikine Daaru Ñàngoor fii la Amet yaroo fii la màggee waaw. mu ngi dëkk Pikine daagu daan fële mais fii suñu yaay fii la dëkkoon ci kër gi. maire bi fii la dëkkoon tey Ameth fii la waaye takku der ngeen ne ñëw fekk ko fi expliquer ñu lan nga ci jot waaw daanaka liñ ci jot am mooy Mouhamed fii ku ko xam fii la ko xamee Darou lépp lu muy def Darou la koy defee bi nga xamante ni takk der yi ñëw nañ fii romb nañ fi ay yoon ñoo gis leen ñuy seddale café ci koor gi comme niñ koy defee ndax moom joxe lekk daf koo neex bi ñu seddalee kafe gi ba nit ñu ndogo ba pare si la ñu ñëw dugg si biir kër gi. nekk di ndogu seen ndogu nekk si biir néeg bii nag ñu fekk leen ci biir néeg bi mais yaakaar naa ni fekkente ni police même bu fekkoon dafa am lu ñu la wax wala nga rey nit sax dañ leen di jàppal nga dem jébbal yoon mais mënuñu leen fekk ci biir li ñu njëkk a def mooy toog pompe gaz saaga leen dóor wax bay bëgg a dee mais li nga xam ni fekkee nañ ko ci biti ba biñ leen di génne si oto bi di leen yóbbu am na si élément policier yoo xam ne ñu ngi naan ñu ngi leen di yóbbu waaye dinañ nangamtaan seen ndey tey ngeen gëj a def lu mel nii. nit nag juróom a jëndoom boo ma saagaa ma fayu boo ma dóoree ma fayu jàllu loolu am na yoon xam nañ sax seen tur mais dañoo tolloogul si wax ay tur xam nañ seen tur ñoom ñëpp bu baax mais dañ cee tolloogul léegi nag beneen bi si des mooy bi ñu leen yóbboo vingt ba zéro heure ñuy wër-wërloo di leen wër-wërloo ba zéro heure ñu woowaat élément policier yi ñu ne ñu nañ tase buntu Pikine ndax buggoon nañu ñu tase buntu Pikine yaakaar ni dinañ génnee xaalis pour jox leen. ndax ñoom loolu la ñuy liggéey mais nag tooñul yorul lu ñuy tere kon amul benn xaalis boo xam dañ koy génnee biñ ñëwee ba police ñu fekk leen foofu ñaar lañ ñu téye Mouhamed dóor ba Mouhamed moom mënul wax keneen ki nga xam ne moom moo ci jot a tane mu expliqué fee moom moo du Gueye tudd Modou Gueye la tudd ñu gën koo xam si moo du Ginaar. ndax bi ñu demee mu expliqué waat ma fee yi ma ne wala mu ne ma policiers yi de dañ ñoo jàpp yóbbu ñu technopole dóor ñoo dóor ba yàq suñu yaram yi kooku bëñam yëpp lañ waddal kanamam yëpp lañu yàq te yaakaar naa ne dëkk bi dafa am yoon bu fekkente ni ñoom def nañ loo xam ne commissaire bi yëgu ko bi affaire boobu amee ba ñu dem si guddi gi ñu wax kaas xuloog ñoom ba ñu jël booy yi yóbbu leen Dominique pour faji ji leen bi ñu demee Dominique li jiitu médecins yi bu ñu ko xoolee xam ni cas bi dafa garaaw ñun ñoo ànd ak ñoom ñu ni lii dañ koy évacuer si lañ ëlbati ko waat indiwaat booy si police bi ñu ni kon moo xam ne moom moo gën a sonn ñoom médecins ñoom policiers yi ñoom ñoo woo sapeur sapeur ñëw jël ci ko ñu àndandoog sapeur yi ñu dem yóbbu ko hôpital dalal jàmm ñu demee dalal jàmm médecin bi xool ko li médecin bi njëkk a wax kii lan moo ko dal policiers yaa ngi taxaw dañoo noppi. mu laalaat yaram bi ni kii xanaa dañ ko doon dóor policier benn policier ni déedéet ma ne ko day fen dañ ko doon dóor technopole lañ leen jël yóbbu leen dóor leen fa ba def nii seen yaram yi médecin bi di xam ne lii dafa garaaw mu évacuer waat ñu ñu yëggaat ambulance bi bi ñuy dem si ambulance sax dañ man duma ma di si ambulance bi ñu yóbbuwaat leen CTO ñu jël sama oto frère bi ñu ànd ak ñoom toppaat leen ba CTO bi ñu demaatee CTO ba àgg foofu médecin bi xool nit lii moom kaabu bu la si la ñu yebal principal. bi ñu demee principal ba dara su lu ñu ñëw wër dugg autopolise bi moom moo jiitu su la neexee ma tudd seen tur mu wax élément ki nga xamante ni moom mooy Henri mu ni élément gendarme bi bu booy yi ñëwee buñ dugg ñu ñëw ñu bloqué ñu si bunt bi boobu lañ gëj a xam li ci xew li ñu si yàlla suturaal nag léeg-léeg am na ñu ñu doon jàppale dem foofu di xool Mouhamed ci li mu nekk di ñu wax ban état la nekkee beneen bi ci des bi ñu xoolee jeudi. médecins yu xool gisuñu benn mbokkam ñu woote police Pikine ni nañ woo mbokk Mouhamed yi ñu ñëw bi ñu ñëwee foofu ma ànd ak sama rakk bii ñu dem ba foofu médecin bi dalal ñu nit ñu bu ngeen gisee ma woo leen dañoo ba ba tey dañoo gisul benn mbokk Mouhamed fii waaye nag yaakaar naa ne bu ñu la dugalee réanimation ak fi ñu la dugal nii foofu yëpp kat yaakaar naa ne bu defee quarante huit heures war na am benn signe de bu mu def mais def na quarante huit heures amul benn signe de boo xam ne def na ko kon ñun amuñu si yaakaar si la ëlbatiku ma fexe naa ba photo booy bi fii mu tëdd si réanimation preuve yëpp dañ koo am fexe naa waroo ñu bàyyi noonu si lañ ñëwaat ma si guddi gi ma gisaat commissaire bi ndax boobu may ñu ñu accès pour ñu mën a gis commissaire bi yenn élément policier yi ba ma gisee commissaire bi taseeg moom waxtaan ak moom expliqué ko mu nu ma bu ma xëyee dina ma waa mu xëy woo ma téléphone mu ñëw ma expliqué ko feey nu mu demee expliqué naa ko nag jotaguñu tàppe samay témoignage mais nee na ma waaw nee na ma dinaa ñëwaat mu boole maag euh, adjoint bi pour mu tàppe li ma ko su amee yeneen témoins yu ñëwaat yaakaar naa ne témoins yaa ngi ci kër gi mbir mi lu leer la yaakaar naa ni technopole ba tamit il foog tamit ñu wax si ndax bëri na ñuñ koy def bëri na ñu koy def te il faut que dañ leen dénoncer man li may wax nëbbatuwuma ci làqatuwuma ci su procureur su ma woowee dinaa ànd ak ñoom si police ni ko diw ak diw kii ak kii nii ak nii la fi demee foofu kon amatuma lu ma ci làkk-làkkal li si des nag mooy yoon na yoon def liggéeyam waaw yoon moom moo war a def liggéeyam gannaaw ba dëkk bi dañu nañ dëkk bi dafa am yoon kon kat ñu ngi bàyyi lépp si loxol yoon. Euh, yaakaar naa ne plainte boobu ñunu tollaguñ si woon. ndax yaakaar naa ne balaa ñuy war a mën a def plainte dañuy jël avocat jëbal lépp si loxoom te yaakaar naa booy def plainte il faut nga am médical bi ñu demee nag tey bi ma xëyee tey dañ maa woo ni ma ñëwal hôpital bi ma ñëwee ñu ne ma ah booy bi kat yàlla dafa def li gën mais nag jox nañ ñu avis de bi. avis de bi liñ ci bind rek wane na ni kii dañ koo dóor moor violente avis de baa ngi nii yooyu yëpp mën nañ la ko wan nga xool. kon fii xam nga ni amatul loo xamante ni lu ñu war a lakk-lakk la wala luñ nëpp nëppal la te yaakaar naa ni bu fekkente ni juguñu ci lii dinañ ko def keneen ak keneen lañ koy defaat dañ koy def keneen ak keneen ndax yaakaar naa ni policier yooyu dewoon jour bi ñu jàppee boy ba yóbbu leen technopole bay ñëw fi ñu jox rendez-vous foofu du police pour ñu xam ci lu boy yi nekk am na yeneen boy yi ñu fa fekk yoo xam dañ leen a jàpp boy yi nee nañ dañ leen a jàpp ci yàmbaa élément policier yooyu laaj leen six cent mille francs six cent mille booy amu ko ñu ko ñu fay booy policier yi deux cent mille pour war leen a mën a bàyyi kon kon dëkk bi bu ñu naan dëkk bi am na yoon ak amul yoon kumba am ndey kumba amul ndey moom ne xaw ma autopsie bi yaakaar naa fi nga xamante ni foofu la autopsie bi toll tey bi ñu demaatee hôpital dañ ñoo jox benn këyit boo xamante ni dañ ko war a indiwaat ci commissaire bi commissaire bi nag jox nañu këyit bi ñuy dem dañoo fekk waa hôpital bi wàcc mais médecin bi nee na bu subaa ma indi këyit boobu waaw kayit bi muy si biir ma denc ndax enveloppe bu ñu collé la te amuñu droit dajji enveloppe boobu waaw. kaddu yu mujj lan ah kaddu yi xanaa di leen santaat di leen gërëm rek. di ñaanal ki nga xam ni moom moo fi jóge yàlla xaare ko aljana si barke weer bi nga xamante ni moom lañ fi nekk di ñaanalaat ñi nga xam ne am nañ ci taxawaay yëpp ndax yaakaar naa ne xaritam yi waxuma la ñun mais xaritam yi tooguñu taxawuñu boobu ba tey ñu ngi ànd ak ñun ak naqar bi donte am nañ naqar mais lu ñu am naqar am naqar bu ñu xoolee xaritam yi rek suñu naqar yëpp dafay jeex daal maanaam ñu ngi leen di sant yéen tamit ñi nga xamante ni ñëw ngeen fi àndandoog ñun tiis bii di leen ñaanalaat yàlla. avocat bi jotaguñu koo gis. mais ba pare li ma fàtte mooy leneen li nga xamante ni gën na ma see métti mooy yaakaar naa ni ñaari nit buñ bokkee problème ba nga jàpp leen ba yóbbu leen nga ni dañoo def lii ak lii ak lu ñu mënti def. Ah, di jiiñ quoi. ñoom policiers yi waxuñu dara lu leer ndax buñ demee police élément policier yi su ma demee taxaw ak kenn ki wax kooku li may wax ak li ma keneen ki di wax bokkul. am na si benn élément boo xam ne dafa ma ni booy yi dañoo yore yàmba gisuñu ko am beneen élément bi may toog di wa bi may wax ak moom mu ni booy yi dañ doon tenter pour gaañ leen te loolu yëpp amul ñoom nee nañ am na seen benn élément dañ ko dóor butéel te policiers yi loolu yëpp ñoom ñoo ko fi def liñ fi def yëpp mu dafa leer nañ si kanamu nit ñi ndax dañ daf dañoo taxaw di gis fee amul benn fee boo xam ni nëbbu nañu si yoon nag. bàyyi nañ lépp si loxol yoon yoon def liggéeyam ñun fu mu si toll nag ñu ngi am avocat bu ñuy saisir pour waxtaan si ak moom mu wax ñu fu ñu war a jaar mais keneen ki nga xam ne dañ koo dóor ba mu sonn moom tamit nee nañ dañ ko yóbbu nañ ko defeere ko muy Modou Modou Gueye boobu. mais buñ ko defeeree am na motif buñ ko jàppee. waaw léegi xam nga police moom yaakaar naa dafa doon loo xamante ne yaakaar naa ne ñun suñu soxla fa la ne ak ku ñun bi ñu demee di laajte lan moo xew nanguwuñ ñu wax dara dañ ñu doon saaga di ñu dàq pour ñu génn police bi. lan la police moo tax ñu ko ñun nanguwuñ ñu ko wax amuñu si PV boobu dara mais yaakaar naa ne Modou ak mu Mouhamed bu ñu bokkee problème bi. war nañ mën a xam état de santé Mouhamed fu mu toll mais Modou nee nañ bu mercredi dañ koy jugé ñun xamuñu lan lañ wax fee tribunal ban fee lañ def pour war a mën a jugé Modou mercredi boobu ak ñoom lan lañ war a mën a def ba ñu dóor leen. ba ñuy cour lañ ci dóor moo ba ñuy ay cour lañ leen doon dóor cour yi ak si biir oto bi procureur bu yobalee enquête mu dem xool auto police ba xam dina si def ay cour. commissaire bi ko. commissaire bi xam bu ma ko expliqué woon lu bëri du ko xam explication bi ma am ci moom moo tax mu xam lu bëree bëri. Euh, commissaire bi commissaire Ndiaye la tudd.